tey bi muy ñëw ñëpp fatal plaaka bi la ñu wax mais Balla looy bëree lañ ko war a wax. ñu ko wax looy looy défendre. Eh, nooy défendre fatal plaaka bi. Balla Gaye kan moo koy conseil bëri. Aziz Ndiaye Balla Gaye mi-temps mi-temps lan la ko mën a dolli si mi-temps bëri nañ waxante li fi ne bul jël lépp moomoo lépp. yow nungul nañ la bàyyi bala Balla Gaye a ak lépp ak be beeg lépp mais bu contact bi jotee ba mystique bi jor ba corrosé naaw lan nga mën a conseillé ba Aziz Ndiaye fu mu takkee ngemb ëpp ma xaalis la def dugg bu waxee ñu dégg ko ndax xaalisam mais bu doon ku yàgg si làmb ami béjjën moom Aziz bu may ñëw day xaal nañ wax li fi ne Bombardier sénégalais la comme ñun Bombardier ñëw dimbali may ñu combat bi mu àgg ñun ñoo far ak Balla Gaye dëkk ak moom yor ko di koy entraîner mais est-ce que gis nga ñu ñun. làmb boo mbër boo amee xaalis. loolu xaw na ma ci jaaxal parce que waa Géejawaay gisuñu leen ci làmb ji benn yoon gisuñu ay la de Guiers gisuñu ay ay ay ay mbër yu ci bari kenn tegu leen bët ci làmb ji Balla est-ce que may na leen opportunité pour ñu mën a ñëw foofu ak Aziz Ndiaye est-ce que boog euh, tënkuñ ko lu bëree bëri. xam nga li gën a ne xam li gën a métti si mbër mooy mbër bu amee xaalis rek borom xaalis lay àndal njëkk si mbër taxul nga jariñu si mbër yu bëri ñu bëri découragé nañ dañ naan mbër ay jaam xam lu ko waral comme genre yi da ngay togg say bool ba mu neex añkat yi ñëw di añ mbasin la ñuy doon añ añ bi waa kër gi nga toggal añ bi duñ añ. te ñoo si sonn xoolal ñaata booy ñoo des esaat ñii gaañu ñii scooter laa leen est ce que Balla Gaye seeti na leen xamul ñëpp. mais digganteem Balla Gaye ak waa Géejawaay est ce que moo ngi ba léegi. moom mënu maa wax si ay digganteem ak waa Guédiawaye mi ngi da tax moom la xam. parce que dama leen dama dama cee gisul kenn ci biir stade bi ci mbër yi. ñoo si moom. Balla waxagul ak ñun parce que jotiwuñ tey jii Balla boo ko jëloon tëj ko fii teg ay gémi si buntu kër gi tey kan mooy dugg teg fi koo xaye xamuñu ko kan mooy dugg mais boo ma fa tegee man xam naa la boo ñëwee man ne la duggal mais boo bëggul kenn dugg da ngay jël ku kenn xamul nga teg ko fi moo tax duñ ko joti. mais ñan ñoo def loolu. ah mën naa am estafam la. mais bu ko dee nii lay demee baaxul. staff ay boucher la Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ñoo ñooy staff bi. Ah, boucher fu mu toj boucher fan la toj. waaw kese du lamb du leneen te lamba tax ñu xam ko moom boucher. boucher ñoo ko yoroon fii stade marché Ndiarème ci yoon la sax mu ànd ak moom moo xam ñoom ñoom la mais ñooñu ñëpp fan lañ toj Aziz Ndiaye ban la lamb la toj. yàlla moo ko may bësam mu yor xaalisam di ko defar mais am na fu lamb yi toll Aziz Ndiaye bokkul. na ko jox ay entraîneur am ñu coaché ko na ko booy kii il faut nga tooñ ko xeex ak moom loo am jël. mais dañoo gis euh, bi ñu mitaawee gisuñu mbër daw dugg ci géew bi ñu gis Aziz Ndiaye moo daw dugg ci giw bi mel ni ku koy conseillé. foofu laay wax ak yow ma ne la Aziz Ndiaye est ce que foofu rëram la ana entraîneur am. Lamine Lamine a nga foofu Lamine Golo min foofu lamin ñëwoon taxaw sax man laa ma xam ne ah ah Balla jox na Lamine cëram mais lamin fa mu toog ñemewul a jug sax. pourquoi Balla mooy man boobu bu ma ko doon coacher comme ni may waxee ak moom rajo nii laa ko koy waxe man fayoo ma moomoo ma su ma la waxul dëgg bu rëcc jotee man ngay xalaat kon naa la wax dëgg fii àdduna bi dëgg la Sénégal ku ne neexul yow yaa soxor mais neex na ba dee yaa ngi ni ñëw indiquement xool ku mel ni lamb nga jox mi koro kon ku ne neexul est-ce que da ngaa sonn waxal fii boo amee ñaata ginaar 2500 lay jar nga am ginaar sa kon lan la leen nit di jaay ba doo ko wax dëgg Sénégal buñ jaayante nañ wax dëgg bala na dellu sa ña mu doon àndal di daan mu woo leen waxtaan ak ñoom seen saal lan moo leen métti man ñu ne ko demal contact ba xam contact du ko may mais bala na la waxal ta yàlla tax rek ñaata jour la contact. bala ku ko waxul demal tel fee nga nekkoon. da ngay koy jay mais ay coppet yoo xam ne ay jaaro la ñuy takk fii ay bënni làmmeñ ay ñaaxarañ loo ay rosa ay ñaaxarañ loo ay génne ay coons ay facebook ngay teg si suñu cumikaay gi di ko jox ay misik loolu di nga daan